mu nekk ab xabaar bu nga xamante ne sénégalais yi yàkkamti woon nañ ko lool léegi application TikTok jamono ji la nag mi ngi dox sans VPN gannaaw ba nga xamante ne nag tëjoon nañ ko ca weeru juin euh, bale ñu daal di euh, génn ci atum 2023 la ñu daal di euh, censuré woon li leen di application TikTok mënutoon marché te boole ci woon li di jamono ji nag gannaaw ba nga xamante ne daal nañuy libéré données mobiles yi ci lañ ca daal di boole li nga xamante ne rek moom mooy li leen di application TikTok mu mel ni nag li leen di nguurub euh, Sénégal rawatina nag nguurug Macky Sall te ñi ko euh, jiite jamono jile daal di teg li nga xamante ne rek moom mooy ay métit waaye nag sénégalais yi may leen euh, benn yoon ab ñu ngi leen di kalaame fépp foo xamante ne rek mën nañ faa kalaame ba tax nag bu ñu sukkandikoo ci ay xabaar ñi leen di américains yi daal ñoo wax daal ne Sénégal ab réewum démocratie la ak liberté d'expression nañu libéré li di données ak application TikTok jamono ji la nag tey jile bi 15 heures jotee maanaam ñetti waxtu ci bëccëg ci ñu libéré boobu lay application application euh, TikTok jamono ji la nag application euh, bi la di TikTok mi ngi marché VPN euh, mu mel ni nag gis nañ ne rek la nga xamante ne rek mooy xeex bi sénégalais nee nañ duñ ko bàyyi benn yoon ndax àjjuma jile joxlante nañ rendez-vous ci bu ñett waxtu ci bëccëg jotee ca place de l'Obélisque pour l'indépendance du Sénégal gannaaw ba nga xamante ne nag Macky Sall ñi mu àndal dañu bëgg a jaay doole bëgg a toog te ñoom seenu mandat dafa war jeex le 2 avril mu mel nag Sénégal jamono jile li nga xamante rek puus nañ élection yi waral euh, mbir bi ni mel jamono ji la nag lii di application euh, TikTok mi ngi marché sans VPN.